Ansoumana Dione ba tey ñu continuer waxtaan wi ñu jëm ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu candidature président Macky Sall jamono ji mu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ak moom ci waaw Benno Bokk Yaakaar ñii nee nañ am na droit te ña ngi koy poussé pour mu def troisième mandat am na ñoo xam ne ñoom d'accorduñ ci loolu noonu koy conseillé na no bàyyi bëgg na ci réew mi yow lan moo sa xalaat ci loolu xam nga ñi wax yëpp ñoo ngi wax par rapport ak stabilité dëkk bi ñoom ñëpp nag xam nañ ne président Macky Sall def ñetteelu candidature parce que mandat bi askan bi koy joxe bu dee mandat bi la moom na dalal xelam xam ne askan bi du ko ko joxaat candidature bi moom bu ko neexee mën na ko présenter su ko neexee mën na ko bañ a présenter man Ansoumana Dione mu présenté wu en 2024 du ma naqari ñii taxaw nag daan bés bu présenté woo ñu xeex ku leen sant ñu xeex. ñoom ñooy ñan président Ablaye Wade ca en 2012 dañ ne woon warul nekk candidat man boobu da da da ma ne woon nañ ko bàyyi mu nekk candidat askan bi àtte askan bi àtte na jëlee ko fi en 2012 xeex nañu ay nit faatu nañ ci est que amoon na njëriñ amul benn njëriñ man dama jàpp ne président Macky Sall fii laa koy waxee ci euh, caméra wu euh, Jolof 24 président Macky bés bu ñëwé wax da fay présenté wu en 2024 na japp ne perte na lepp lu mu ci considération ci bop Sénégalais yi té mom ak ay nitam ñu wax fu nekk ne duñu nekk candidat 2024 président Macky ci boppam wax na fu ne ci aduna bi ne du présenté wu en 2024 manam mom paré na ci vidéo yaa ngi fi nit ñaa ngi gis ay nitam euh, son ancien premier ministre Abdoulaye Boun Dionne Aminata Touré suma xarit ma Madior Fall ak ñeneen wax nañu ba mu leer ne Macky Sall jeexal na 2024 lay pare kon bu ñëwee ne dafay présenté wu sénégalais yi ñu xam ne kii du modèle ci wàllu sàmm kàddu si nit dafay sàmm kàddoom man su ma nee du ma bokk en 2024 même su ma ko yoon mayee sax. damay sam sama kado ma baña bok. parce que rew mi Macky Sall ak ñoom andal moomuñu ko kon man limay diggal digal nit ñi limay diggal digal taxaw naan bu présenté wu ñu xex moy bës bu nee na présenté wu nañ ko bay mu présenté wu te xamné daanu na ba noppi bu dam bay daanu jarul yéeg di gor. lan motax ngeen daanu na ba noppi foog justement daanu da ba noppi bu demee ba am fit man naa ngi nii man Ansoumana Dione nee naa candidat laa en 2024 loolu constitution moo ko may moom Macky Sall biñ ko laajee ndax di nga ne candidat daf ne du wax waaw du wax déet loolu moo lay wan ne moom kenn xamul ndax dana bokk kenn xamul ndax du bokk moom rek moo ko xam. maanaam kenn xamul euh, kenn xamul lan la waaye bés buñ ci yeggee mu ne dafay bokk sénégalais xam ne moo ne woon pare na ci même fekk ne constitution may na ko ko laa wax même bu ko constitution may dafa war a sàmm kàddoom man Ansoumana Dione du ma topp ñi ko xam ne du sàmm kàddoom Abdoulaye Wade sénégalais bam ne maa waxoon waxet ci la sénégalais pare ci moom kon tey moom war na fexee moom président Macky Sall mu am woy bu rafet woy bu rafet mooy lan def na ñaari mandat 2012 euh, 2019 moo ko waxoon juróom-ñaari euh, euh, mille juróom-ñaari kabar 2019 2024 di juróomi kabar nii la ko waxee moom ci boppam mu jël ñoo ngi jëm ci wàllu ñoo ngi jumb ci wàllu tabaski nii la ko waxee woon ci euh, pour mën ko leeral ci bopp nit ñi léegi nag mënoo leeral nit ñi ba mu leer nga bëgg ñëwaat delluwaat ginnaaw ci say wax man en ce jàpp naa ne loolu su amee askan bi war na xam ne ki ñu seqal ki ñu seqal gorewul nit dafay gore Moustapha Niass wax na ko il faut partir pendant qu'il est temps maanaam dem bu jotee demal. ba ci Seydina Muhammad ba ka euh, Jibril ñëwee euh, bi bi waxtu faatu jotee biñ ko laajee bu la neexee nga toog fi su la neexee nga dem lan la tànn mu dem wuy ji boromam heure dem dem la heure toog toog la en mille 2024 président Macky Sall dafa war a dem warul bokk ci élection man waxuma ko moom moo ko wax waaye loolu ba nga koy wax est-ce que yaakaaroon na nekk doon président de léegi mu xas ko nekk nag sumb ay programme ak ay projets yi nga xam ne pour réew mi la donte nañu bëri gis nañ liggéey bi fi def xam na ne xëy na fan fan yi nii réew mi xaw na métti ci wàllu dundu gu cher gi waaye ci wàllu infrastructure moom liggéey na lu bëri te enseignants yi ak euh, yeneen fonctionnaire gis nañ ne yokk leen seen salaire est-ce que loolu du programme bi tax mu ñor ko mën a mayaat beneen mandat au lieu que di ñëw bees di commencer encore à zéro encore sa morom ñëw doxal bu dee la mm-hmm. Macky Sall na ba ba ba nga tukki mm-hmm. Macky Sall mais bu nekkee à vie sax dë dana fi jógee léegi nag su nga moom moo ne woon du bokk na dem parce que di sommes 17 millions 17 millions euh, du ñu ne parce que njiiti réew lenn kese la na nga jub te jubal liñ la dégg moomuloo ko Abdoulaye Wade en 2012 lan la waxoon nañ ko may tuuti mu yeggali waaye mayuñu ko ko dafa dem Macky Sall ñëw gën a liggéey gën a def lu baax gis nga man Ansoumana Dione su ma ñëwee li may def boo ko comparé ak li Macky Sall def da naa Macky Sall defu dara man su su ma demee keneen ki may wuutu la muy liggéey da nga naan Ansoumana Dione def fi dara réew noonu lay doxee. boo jëlee tey yu Touba wala nga jël yu Tiwaawan wala nga jël jumaayu Màkk pourtant ba léegi même jumaa ji la waaye dañ koy yeesal jamono bu nekk Masaalikul Jinaan bii nga gis nii fii ci eh, fii ci Ndakaaru fii ak ñaar fukki at mën na gën a taaruwaat ko te pourtant benn jumaa ji lay doon donc mbiri noonu lay tëddee euh, après njiitu réew leneen mi si gannaawam mais su fekkente ne dafa bëgg

organiser ay élections yu transparente ma ne dootul fay turam dootul fay day toog nekk benn patriarche donte ne atam ba léegi mën nañ ne Macky Sall ba ba léegi ba mag waaye ci ay jëfam dinañ ko considérer xool président yu bari ñëw li ñu naan euh, président honoraire li ñu naan maire honoraire yooyu yëpp am na fi loolu Macky Sall su ko defee dina am way boo xam ne du am benn njiitu boo xam ne dina am au Sénégal waaye nag toog ay nit gaañu si ay nit ñàkk seen bakkan parce que ñoo xam te ni tey jii opposition bi ma gis ni tey jii ay nit la ñoo xam ne lenn rek la ñuy wut mooy jàmmaloo ak président Macky Sall bés bu waxee ñooñu ci la ñu profité jàmmaloo ak moom bu ñu jàmmaloo dëkk bi dina yëngatu am na ñoo xam ne ni tey jii ñi ngi xaar Sénégal yëngatu ñu ñëw teg seen loxo ci suñu alal kon loolu yëpp pour éviter que Macky Sall na def yi fu mag. waaye dafa am euh, Sonko lu muy wax nee na Macky Sall moom xamul ay doxal yoon doxal kii nga xamul yoon mun daal jàmmaar loolu xam est-ce moom it am na dëgg ci maanaam gars yi def euh, jox dugg si dëkk bi jaxase pour moom mu reculer ci muy def nii. ñi koy wax. Mhm. man ànduma ñoom xalaat. Mhm. rapport de force. Mhm. man gëwuma rapport de force. amul fenn loolu. mbir yi bu doon force la. bu doon bu doon rapport de force la. Macky Sall jóge def bi yàgg. mbir yi nañ ko teg ci yoon la. nañ ko teg ci kaw démocratie. nañ ko teg ci transparence bu ko teg ci transparence ñu bàyyi askan bi mu tànnal boppam kan moo sant kan ak kan mooy def rapport de force. en tout cas le peuple n'a jamais. opposer une force au pouvoir peuple est lay def mooy jël le il fi Abdou le carton, Il y fi jël carton, il fi force peuple bi la carte électorale mais y a un rapport de force qui peut dégg un rapport de force amul amul idée un de force. mais du même euh, euh, euh, da dañ lay jox saaku deux cent kilos ne la yéegal ko nga gis ponkal ba am doole mën na ko yégal nga gis xale bu ndaw utiliser xelam ba déplacer saaku deux cent kilos bi kon mbir mi du ci force mbir mi ci xel la ci xalaat la ci xam-xam la man dama jàpp ne Macky Sall doole jëlee ko fi manifester

bant qui kenn président Macky Sall joxe man rendez-vous président Macky Sall 2024 xëy na bi ci bopp réew ba mais je ma ko ma rendez-vous en février 2024 mu jox ma caabi palais euh, comme ni ko Abdoulaye Wade joxe mu ñaanal comme ni Abdoulaye ma ko ko parce que le ci président Macky Sall ñu sargal ko a yalla ci président Macky Sall ñu délo ko jukkal ci lim fi def ci lu baax si lim fi def ci lu rafet ak élection présidentielle mu bañ ci bokk wala même bu ci bokké man bu yalla dogalé askan bi tan ma mu jox ma je vais ma gungé ko ba paré téy ko en même temps parce que man Macky Sall parce que ma dama koy euh, expérience xam dama koy jëriñoo. Mhm. comme bu am lay wadd mhm. yàlla dogal na. mi ngi fi mhm. ba sax bu Abdou Diouf. ñoom ñëpp yàlla yàlla dal guddal seen fan. Euh, ñun Sénégal am chance. njiiti réew yi fi jaar yëpp. yàlla ñu bàyyi dinañ fi. yàlla nañ fi yàgg. yàlla nañ fi gën a yàgg. ñoom ñëpp nag da ngay ànd ak ñoom. di taataan seen i xam-xam. seen ay xalaat ndaxte mag. mat naa bàyyi si réew. la la ñuy wax. Sénégal bés bu ñu koy tabax. dafay fekk njiiti yi fi wuutu yëpp. ñoom ñëpp ak ki fi nekk ñu nekk benn euh, di gën a jubal parce que muy sengoor euh, muy muy Abdou Diouf di Abdoulaye Wade di mag Sall sengoor moom euh, su borom doon dogal na li mu dogal ci moom waaye Abdou Diouf a ngi fi Abdoulaye Wade ngi fi Macky Sall ngi fi ñoom ñëpp dañu war a ànd ak man Ansoumana Dione ñu continuer di gën a defar ndaxte ñoom mësuñu am yéen a yàq xëy na ñàkk comprendre ak ak ak ñàkk xam bëgg-bëgg askan bi parce que Abdou Diouf bu demee ba wax naan xamu te ne meew juróom dem lay jël. amul la xew kon kooku yëgul li xew. kon léegi doomu askan bi xam ne ñoom moom mooy dund coono askan bi. président Macky Sall. newoon na ne def na tuuru Sénégal pour xam ne Sénégalais yi di tund. c'est-à-dire kii nar a kii nar a taxaw askan bi. jarul muy def tuuru Sénégal. pour xool xam. dafay fekk mu dund ko. mun euh, euh, muy subir. les mêmes problèmes que le peuple sénégalais kooku bu a askan ci gi mu nekk kon man président Macky Sall en 2024 waruta il a fait. wu loolu su ko dana dana dana Il a taxaw nga rek lañ koy moy il man le président Macky Sall ku yalla gërëm la ku yalla téral la ku yalla fonk la ci il ku yalla defal du lu muy waaye lu muy yokk la kon tey jii ñi koy euh, jéem a song ci ci rapport de force nañu xam ne du force moo fii jëlee Macky Sall Macky Sall li ko fi jëlee mooy que nag askan bi ci boppam ñëw tànn te askan bi askan boobu nag moo am mbégteel ci mboolem homme politique yi du Macky Sall kese ñoom ñii dox na rapport de force askan bi seen bopp gëmu leen parce que wedd na leen parce que nit ki mënoo ne jox askan bi moo mun a indi ay saafara